bi moo tee mais ñi fi teew nañu xam ni qualité fi teew parce que membre fondateur yi presque ñoom ñépp ñi ngi fi membre fondateur bu réseau dooleel jigéen nga xam ni moo sos mutuelle bi ak suñu mbokk yi nga xam ni ñooñu dabee si ci biir mutuelle bi Eh, di groupement yi nga xam ne dañu fare ci docteur Ndiaye ñu ngi jaajëfal ñépp nag di leen wax soyez les bienvenus eh, di leen wax ne mbooloo mi comme ni ko Aminata waxee assemblée générale bi dafay lu am solo ci dund mutuel ñu koy def at mu nekk moo tax nag ñuy bëgg teewaayu ñépp mais xëy na xat-xat yi ak bés bi ñu koy def dina tax ba ñi nga xam ne waroon nañ teew ñëpp duñ teew mais ñi nga xam ne ñoo fi teew rek dañu teewaale ñëpp kon am nañu satisfaction trop ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew di leen wax rek ne di leen fàttali tuuti rek ne eh, dundu mutuelle bi li nga xam ne moo indi mutuelle dooleel jigéen tey ba mu toll fii eh, ndax réseau dooleel jigéen bi nga xam ne man maa ko jiite moo waral sama présence fii ensuite ma nekk vice PCA vice président comité eh, conseil d'administration mutuelle bi réseau dooleel jigéen nag ñu ngi ko sosoon depuis 1999 bi ñu ko sosee juróomi téeméeri jigéen lañu woon ñu sos ko nekk di ci yëngatu boole suñu ay eh, doole suñu ay koppar yu ndaw di yëngatu nekk coopérative d'épargne et de crédit ci la ñu nekk nekk ci nekk ci di ci yëngatu di ci yëngatu ASEA encadré ñu ba ñu dem ba 2004. ci la ñu soog a am agrément nekk mutuelle moo indi lii tey 2004 ak léegi xam ngeen ni xaw na yàgg ndax mi ngi ci fukki at ak juróom-ñeent ren réseau bi bi ñu ko créé ak léegi nekk na si ñaar fukki at ak ñeent ci ren kon loolu mbooloo nag buy dox dina am ñoo xam ne dañuy génn ñi di dugg mooy indi beesal gi waa mais bu ñu sañoon nag mbooloo mi gën a takku di gën a nit ñi di gën a ñëw xale yi itam di gën a ñëw ndax ñun ñi nga xam ne ñoo doon membre fondateur yi ñu ci bari jëm nañu mag ñuy ñaanal ñi nga xam ne nekkatuñu ak ñun suñu borom yërëm leen euh, yeesal yërmadi ci ñoom te xaare leen àjjana waaw ngeen xam ne rek réseau dooleel jigéen jigéen ñu ko sosoon ay jigéen jàmbaar ñoo xam ne dëkk ci département bi yépp ndax boo booy xool département Thiès bi ni mu toll commune bi lu mat ñeen fukki groupement ak juróom dajale ku nekk jóge ci koñ yu bokkul ñu dajale seen doole di liggéey ba toll fii kon gàcce ngaalaama jigéen ñooñ muy liggéey bu am solo na boo xam ni bu ñu sañoon mu continuer ba ca suñuy sët ndax liggéey boo gis dafay am relève ñun ñi ko sosoon booy xool kenn ku ci nekk sa juróom-benn fukki at matul yaa ngay làmb juróom-ñaar fukk donc ñooñu war nañu am ñeneen ñu leen wutu nekk ci seen wet ba keroog ñuy ñu fi ñuy ñuy toog dootuñu mën xale yi remplacer la waaw mutuelle bi nag bu ñu ko sosee dafa fekk ne pour luy dooleel jigéen bi comme niñ ko ni mu wuyoo ndax jigéen juy liggéey rek faw nga soxla ay koppar te xëy na banque yi diis na ci ñun diis goo xam ni du du ñëppay mën a dem ci banque yi ndax lañu ñu laaj ñu ko am loolu moo waral mutuelle bi nekk fi di jàppale jigéen ñi ci wàllu koom kuy liggéey ñëw bind sa dossier ñu lebal la xaalis nga dem liggéey fay jël la nga ci am la ca nga ñëw fay ut ci sa euh, li nga ci am muy liggéey bu am solo nag bi ñu tàmbali nag metti woon ndax amuñu woon partenaire mais léegi yàlla suturaal nañu ba am nañu partenaire yoo xam ne ñëw nañu ku ci mel ni waa FONGIP ak waa kii nu mu tudd ah waa FIMF waa FIMF jàppale nañu bu baax ci formation jàppale ñu ci matériel jàppale ñu ci lu bare bare bare di ñu jox xaalis bu ñu liggéeyee delloo leen loolu itam lu am solo la ndax jigéen ñi fi mu nekk nii ku nekk xam na waar bi ñuy bay ci wàllu économie di ko bay ci wàllu social di ko bay ci njaboot gi kon mm, jumtuwaay boo xam ne jigéen ñi teg nañ ko pour jigéen ñi pour mu leen di jàppale rek eh, bu ñu yeboo jàpp ci mu gën a jëm ca kanam te gis nañ ni ñi nga xam ne ñooñu la ñu seqal liggéey ci dëkk bi ku mel ni ñoom waa développement communautaire ak ñeneen ñi ngi ci jàpp lu ñu mën di ñu jàppale pour ñu gën a pour ñu gën a am doole waaw loolu tam dafa ci am solo ndax jigéen bu fekkee soxla na xaalis faw mu am fu yomb foo xam mën na ko fa jële bu liggéeyee delloo waaw bu ñu sañoon nag partenaires yi gën a bari ba nga xam ne intérêt bi ngay teg ci prêt yi dina wàññeeku mutuelle bi aussi ay charge am gën a wàññeeku su amee ay partenaires yu ko jàppale waaw loolu daal ay gàllankoor la yoo xam ne mi ngi si mi ngi si liggéey bi mais ñi ko yoree ñi ngi jàmbaar lañu trop te yokkiwuñu bés bu nekk ñi ngi ci di def seen kéemtalaay kàttan liy wolof di wax rek ku yàgg ci teen baag fekk la fa ñu ngi ci daal jàpp ba keroog ñuy am li nga xam ne moom lañ ci bëgg di ko ci séentu ñuy ñaan nag xale yi nga xam ne yéen nekk ci instance yi ak xale yi bokk ci mutuelle bi ndax bu ñu nee rek fi ne ñëpp bokk amul ña ko sosoon ak ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw ñépp ci yem xale yi nga xam ne ñoo ci nekk nekk ay sociétaire di di leb ak di fay di ñëw dugg ci instance yi ndax bu ëllëgee ñu mën a bokk ci personnel dirigeant bi dirigeant yi mën a jàppale mutuelle bi mu jëm ci kanam waaw ñuy jaajëfal rek ñi nga xam ne ñoo fi teew ñépp nag ñu ngi leen di jaajëfal baax di ñaan ñoom ñépp la ñu jàppoon ñu gën ko jàpp ndax mutuelle bi gën a jëm ci kanam ndax ay jigéen rek lañu yoo xam ne suñu doole bariwul bu ñu sañoon tam partenaires yu am ñii ñu am ñu gën a dooleeku waaw ndax moom mooy tax li nga xam ne bëgg nañ ko ñu mën ko am ku soxla xaalis boo ñëwee ñu mën la lebal buñ la lebalee tam intérêt bi mën a woyof nga mën a fay ak sa sago mën a am loo xam ne yow tam da ko yóbbu ci sa kër waa defe naa maa ngi yemale sama kàddu foofu euh, di jaajafal ñi nga xam ni ñoo nekk ci présidium bi ku ci mel ni madame Bakhoum tey samedi la mais mi ngi dagg itam yëpp ñëw nekk ak ñun di jaajëfal Adja Amita Samb moo tax moo remplacé Fat Bokum mais ba mu ñëwee ba tey muy def kem te lay kàttanam waaw di jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di remercier aussi gérante bi Adja Kumba Aw nga xam ni moom tamit moo nekk ci mutuel ba moom sax la ñu gën a xam ndax ñun duñ fay nekk ñun xëy na assemblée wala ay réunion yooyu fay ne mais moom moo nekk ci mutuel bi bés bu nekk ak personnel bi nga xam ne ñoo koy jàppale ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaax ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi ndax lii jaamu yàlla la nekk ci bërëb boo xam ne ku am soxla fa nga jëm te boo fa demee bëgg nga sa soxla faju kon ña fa nekk lépp lu ñu góor woon war nañ ko yokk maa ngi gërëm ñëpp di leen sant leen ñaanal jàmm. asalaamaaleykum ma nuyuwaat. madame Aïda Diop présidente du réseau teg ci madame euh, la chef d' agence de développement communautaire madame Bakhoum madame Ndiémé Ndiaye présidente du comité de crédit. Madame la gérante, Madame Sow, Kumba Absaaou, et M. Diop, représentant le docteur Ndiaye. Je souhaite la bienvenue à tous celles ki sont la et tout ceux qui sont là aussi, qui font partie du réseau. di leen dalal jàmm di leen wax di leen wax ni leen c'est toujours un plaisir de nous retrouver à l'occasion de notre assemblée générale qui est l'organe suprême de la mutuelle Elle se tient une fois par an et est composée de l'ensemble de ses membres assemblée général bi moom mooy mottali li nga xam ne moom lañ exercice bi ñu def ci deux deux mille vingt deux muy activité yi nga xam ne mutuelle bi ñoo ko def ñu nga xam ne présent organes yi nga xam ne ñoom ñoo ko composé ñoom ñoo ko nar a présenté fii donc maa ngi leen di wax encore avec nous. toujours avec nous ñu ngi leen di tàllal loxo chaque jour di fas yéene sàmmonteeg li nga xam ne moom lañu waxante suñu diggante ak yéen muy bénéficiaires yi ngeen doon kon nag maa ngi leen di ñaanal ñu def séance de travail ak jàmm ak salaam ñu ubbi ko ci jàmm. Directeur des comptes accentuer son regard sur les garanties adopter plus de rigueur sur leur mode de recouvrement pour prétendre à des résultats. au bonheur de tous. On va essayer de rechercher sans relâche des stratégies pour minimiser les retards. L'augmentation de guichets et toucher tout le département de Thiès est envisageable grâce à la collaboration avec le FONGIP et d'autres partenaires qu'on aura pu trouver. Nous avons une vieille doléance, c'est-à-dire un local. Un local plus adéquat Mais en attendant, pour un minimum de sécurité et de confort, Madame la gérante a prévu de réaménager le local. Nous avons besoin aussi de moyens logistiques. Nous en avons parce que nous avons une moto, mais nous voulons une voiture. Pour faciliter nos déplacements dans les localités. Maintenant, nous allons jusqu'à Ndayane Ndayane. <laughs> nous avons une qui de Ndayane. nous allons à Popenguine. nous allons à Mboro à Ndiayène Sirakh donc. vous voyez ce que je veux dire. il faut il nous faut une voiture. Je vais arrêter mes propos en vous souhaitant une bonne préparation de la fête de Tabaski à l'avance. et vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous en 2023, Inch'Allah. Merci à tous. Merci. C'est avec bonheur que je viens répondre à votre invitation pour présider, comme d'habitude, cette Assemblée générale de renouvellement de la mutuelle McDolgy, mutuelle d'épargne et de crédit de l'Edjigen, intervenant dans divers domaines économiques, social et financier. Mais j'approuve aussi un grand plaisir pour venir partager des valeurs communes que sont la solidarité et l'entraide de la mutuelle entre les membres qui la constituent. Reconnue officiellement en 2004 par le ministère de l'économie en tant que structure financière déconcentrée, la mutuelle d'épargne et de crédit est bien articulée à l'approche sociale de lutte contre les discriminations, les violences basées sur le genre, des projets de résilience des ménages vulnérables, des programmes d'équité et d'égalité de genre. Ce qui lui a valu de la confiance et une place auprès du gouvernement et des services décentralisés dans un cadre de partenariat pour la mise en place de filets sociaux dans l'institution financière. Et au passage, recevez les encouragements et félicitations des autorités locales pour votre abnégation et transparence dans l'exécution de vos programmes et politiques de financement. En ces mots, je déclare ouverte cette Assemblée générale de la mutuelle McDoldi. <laughs> Bonne suite. nuyoo bi nag maa ngi koy jiital madame Niass soxna Aminata Samb ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi njukkal. di beral nuyoo madame Bakhoum chef service départemental développement communautaire di sant bu baax a baax madame Bakhoum ndax lan disponibilité am bëgg a jàppale jigéen ñi taxawaayam ci biir Thiès man de du fii rek laa daje ak moom mais fës puisque mësuñu koo sollicité mu ngàntal mësula am muy samedi muy lundi muy dimanche heure boo ko woowee elle toujours présent te mënoon na ñàkk nag comme madame Bakhoum jërëjëf yàlla yàlla jàppale ko euh, di nuyu madame Aïda Diop Fall mooy présidente réseau dooleel jigéen mi nga xam ne moo jur tey mutuelle dooleel jigéen Aïda gis nañ taxawaayu réseau bi ndax li naan peccum liir bu neexee dañoo jàpp ca mbagg ya réseau bi mooy suñu yaay moo meññ mutuel bi te ba tey loxoom jógul ci mutuel bi jërëjëf madame Diop Fall ah bu ma ci jógee nag nuyu njaayeen bi nee na maa sant Diop waaye moom it sant Njaay kon sëñ Ablaay ñu ngi lay nuyu ñu lay yóbbante nuyu di la yóbbante cant boo xam ne am na xamuñu fu mu commencé waaye xamuñu itam fu mu yem ci docteur Ndiaye jàppale bi ñu jàppale ci jàppale bu wér la di nuyu membre organe yëpp moo xam CA comité de crédit ak comité de surveillance di nuyu personnel bi ndax li ngeen wax ci madame Sow sox euh, sëñ bi madame de madame Sow mi ba ñuy ànd ak moom nii la toll ñoo ko may mu kon yàgg nañu ak madame Sow te boobaak léegi yàqalaguñu kon madame Sow yooyu gis nañ sa taxawaay ci mutuelle dëgg la ñu ngi ci waaye lu ci ëpp moom la ndax ñu bari gis nañu fi ñu jaar ak seeni gérante ñun de yàlla suturaal nañu jaaraguñ fa ak madame Sow jaaraguñ fa ak suñu personnel kon nag yéen itam gàcce ngaalaama di nuyu nag sociétaire yépp moo xam góor moo xam jigéen euh, bu ñu nuyoo ba pare nag ñu dem ci liggéey bi mooy présentation rapport comité de crédit ndax mutuelle dafa am ay sàrt yu ko lëkkale ak ñi ko tiim moo tax at mu jot dangaa war a def assemblée général bul wut mbooloo waaye wuutal nañ nit ñi ñëw déglu li nga liggéey ndax obligation la moo exercice bu ñu def ñu taxawal mbooloo mi muy assemblée générale ñu war cee joxe suñu rapport kon ci fànn boobu tey moom la ñuy am indi suñu rapport de comité de crédit ma fàttali leen comité de crédit ñii ñoo fi nekk man soxna Jéemi Njaay soxna Ayda Kan Jàllo di sunu doom di sunu lépp xale bu sawar tak ak soxna ñaaña Jóob moom itam xale bu sawar ay daañu naan na xale yi dugg waaye xale yi dugg de wax dëgg yàlla macha allah jërë ngeen jëf yéen xale yi ak madame Leena Mbay ah eh mu nga dee di dugg si taar da nga de si suñ comité bi dong nag mu am moo am particularité am góor ana Gabi kon Gabriel Faye mooy góoru mbootaay bi mooy sunu champion moo ñuy jàppale ci comité de crédit kon jërëjëf monsieur Gabi waaw gannaaw bi ma limee ñi bokk ci comité de crédit bi ñu waxaat leen tuuti rek li nga xam ne mooy wareefu commité de crédit lépp dërëm bu ngeen fi jël daa fekk ne ci suñ loxo yi la jaar suñu loxo yi ñu xeebu yii ñoo koy analyser buñ koy analise itam duñ ci am xeej duñ ci am seet dañuy xool rek ndax dëppoo na ak li nga xam ne moo tax mutuelle bi ñu taxawal mooy politique de crédit kon kuñ fi rejeté sa dossier itam nga xam ne dañ koo dëppale ak politique de crédit ngeen xam ne loolu sart yi la moo ñu tënk ba mënuñu koo jalgati euh, ñu ne itam ñoo war a topp bor yi foofu aussi am na lu ci soxna Aminata wax PCA ñu ngi ci topp am nañ ci ay jafe-jafe nag waaye suñu ñaamari membre yi bokk ci comité de crédit di topp bor yi muy ay dakat muy ñaaña muy gabi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def seen wàccuwaay ñu ngi ciy def seen kéem kàttan euh, ci kaw loolu nag du ñuy toog rek ne nañ jox diw crédit déedéet daa am ni ñu koy doxale mooy le 10 de chaque mois danañu daje ñun comité bi fekk na dossier yi agent de crédit bee toog di Lamine dana ko toog bind ko ak intéressé ñoo tegal ñu ci table bi balaa teg ci table bi aussi dana jaar ci gérante bi ndax ñun ñi ñëpp ñun de xamuñ leen waaye ku fi taxaw ku ne ku ma mën naa jaar ci sa tur ak sa sant nga xam ne kon kumba aussi taxawaayam ci dossier de crédit yi am na ci solo ndax moo xam ñi mel ni njóobee bi ak njaayi ni ku ma xam na leen danañ ci jàppale bu bari bu baax a baax agent de crédit bi aussi bu ñuy analyser dossier bi dañ ko naan indil ñu borom borom bi géex ndax waaw indil ñu rapport bor yi géex ndax Ndiémé Ndiaye mii bëgg 1 million tey foo mu jaar ba yegg si ci 1 million bu dee ne dama ne bisimilaay ni jox leen ma 3 millions ñu ne ah waaw kii moom Jóob la sant wala nu mu demee noonu donc loolu aussi da ci am solo ndax ci la ñuy mën a. Euh, apprécier membre bii leb ndax dañu ne balaa ngaa leb il faut nga ubbi sa compte mouvementé ko diiru nangami weer wala nangami fan ñu doon laa mën a lebal te itam doone bisimilaay rek ne jox leen ma million du demee noonu il faut mu am koy jaar processus la da nga yegg si nag ca enveloppe bu mag ba yàlla nañu fekk nag ñun itam yàlla ñu yàlla dooleel ba lu fa waay leb rek mën la koo lebal Euh, donc ak itam ni nga ko fayee ndax bu ñu lay monter dossier da ngay joxe say garantie da nga ni laa mën a fay waaye wax daa yomb mu des jëf ja est-ce que dossier bi nga mujj a def topp nga la nga waxoon ak agent de crédit bi ba ngay rembourser matale nga ko wala des na wala am nañ ciy jafe-jafe donc loolu yëpp dañ koy càmbar balaa ñu laa jox crédit bi. bi ñu defee loolu ba pare nag ñu door ne ah diw mi wax dëgg yàlla ay la yëwén li mu ne moom la leb projet war na koo mën a liggéey war na cee mën a liggéey fay ko te am benn jafe-jafe seulement fay waaye itam dana ci am loo xam ne dana deñ wala itam dana ko jëriñoo ci biir këram loolu la ñuy def weer bu nekk situation fukki weer ak ñaar yi nga xam ne joxe nañu ko mois par mois mu ngi nii de janvier deux mille vingt deux ba décembre deux mille vingt deux moo nekk ni tableau détaillé mois par mois gannaaw mënuñu fee nekk nag dinaan janvier tant de millions février tant de millions avril tant de millions dañu ko tënk bi ñu ko tënkee ndax dafa am ay xeetu crédit yoo xam ne man ci suma jëmm bopp danaa ñëw lekk euh, Nafisatu mais bokk na ci groupement groupement war naa mën a ñëw leb muy crédit groupement am na ñu itam tout petit crédit bi nga xam ne liiñ bu bees la woon foog naa mu ngi door a am ñetti at wala ñeent nga xam ne mooy jàppale jaaykat yu ndaw yi mooy le tout petit crédit ñu di ko wax TPC mu am itam crédit traditionnel boo xam ne boobu moom ba ñu sosoo ba léegi dañ koy joxe weer wu ne léegi bu ñu defee récapitulation crédit bopp sa bopp rek joxe nañ ci deux cent vingt six crédits deux cent vingt six crédits boobu cent soixante deux femmes la ak soixante quatre hommes ñu jox leen envelopp cent trente trois millions zéro quatre vingt deux mille francs yéen a ngi dégg bu baax li dugg ci bopp bopp sa bopp yi doon na téeméeri million ak fanweer ak ñett ci bopp sa bopp yi muy individuel di ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-benn ñaar loolu di ñaar ñaar téeméeri nit ñoo ñaar fukk ak juróom-benn am téeméeri jigéen ak juróom ak juróom fukk ak ñaar ak juróom-benn fukki góor ak ñeent groupement yi groupement yi joxe nañ fi 34 groupement fanweeri groupement ak ñeent ñoom. jox nañ leen 41 millions 789 mille daanaka ñeent fukki millions ak ñaar yu manqué tuuti moo jëm ci groupement yi yéen a ngi dégg bu baax tout petit crédit mooy li nga xam ne moom la ñuy dooleele borom njaay yu sewaat sew-sew yi di ko joxee fukki fukki junni ba ay cent cent mille boo weesoo foofu nga mën a dugg nag ci crédit yu mag yi foofu jox nañ ci 126 personnes ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-benn téeméeri jigéen ak fukk ak ñett ñoo ca nekk ak fukki góor ak ñett ñoom seen enveloppe bi ñu leen jox nekk na douze millions neuf cent mille presque fukki million ak ñett moom la ñu jox waa tout crédit crédit traditionnel yi nga xam ne nag ñoo moom ñoo ñoo commencé woon mutuel ba ba fii ñu tolloon tey. mosuñ leen a bàyyi at mu weer wu nekk danañ ci jox fukki jég fukki jigéen at mi jox nañ ci cent vingt crédits cent dix crédits autant pour moi cent dix crédit ñoom cinq cent mille ak lañ leen di jox moo muy cinq millions cinq cent mille loolu moom moom la ñu jagleel euh, crédit traditionnel yi donc total deux mille vingt deux joxe na quatre cent quatre vingt seize crédit 385 femmes ak 77 hommes enveloppe bi ñu joxee ci at mi yépp nekk na million millions 417 mille xeeb nañ ko lool nag ñaar téeméer yu millions yu manqué tuuti xeeb nañ ko ñaan leen ya nañ ñaan yàlla ñu toog ba di fi joxe ay milliards yàlla ñu ko yàlla yombal donc euh, loolu boo ko méngalee ak crédit daaw ba mel na ni yokkute am na ndax daaw 191 millions lañ joxe woon dañuy joxe 199 millions kon wax dëgg yàlla mën nañu ne yokku na te dañoo ñaan yàlla di yokk fi ñu toll li ñu naan tout n'est rose am nañu ay jafe-jafe ci biir bor yi jafe-jafe yi nag ñun ñi ñun ñëpp ñoo ci war a def suñu jom ndax am na noo xam ne bu ñu demee DRS daf ñuy croix croix rouge comme nii micro bi kon croix rouge nag topp la jubbanti woo dañuy ñëw tëj sa mutuelle ndax ñaan yàlla yàlla mutuelle bi tëj accaleen dañu wax nag tey moom nañ jaayante nag bor yi dugg am déet buñ ko deful croix rouge la ju jëm ndax bor yi am na bari na bari na bari na suñ comité yaa ngi ci topp am nañu agent de recouvrement waaye ba tey bari na donc c'est l'occasion aussi ñun ñëpp ñu ñaaxante gën a fulaal bor yi ku nekk xam nga ne jamono neexul waaye faw nga bàyyi dara def dara donc euh, bor yi daal mooy suñu problème numéro un beneen bi mooy local bi PCA wax na ko waaye ñoom sax xam naa yëguñ ci dara ci ñun la gën a metti ñun comité de crédit ndax ñoom bu ñu toogee ca buntu euh, mutuelle ba sax teg seeni chaise mën a mën a waxtaan ndax ñoom dañuy waxtaan waaye ñun ñi nga xam ne dañuy yori këyit do dossier yaa ngi fii euh, machine baa ngi fii ngay calculer vraiment te table bi ñu am daanaka xaaju table bi dong la juróomi nit bëgg koo set ñun yaakaar naa xataayu euh, local bi ci ñun ñoo ko gën a yëg kon monsieur Diop. anamu partenaires yëpp daal ñu leen koy diis waaw monsieur Diop ak ñëpp ak partenaire ak ministre madame Bakhoum ah, yéen ñëpp la ñu ko diis vraiment comité de crédit bi bëgg liggéeyam day metti ndax table boo xam ne lii la cinq per cinq nit bëgg cee ak seeni i vraiment metti na ci ñun lool ah loolu daal ci gàttal mooy suñuy jafe-jafe jafe-jafe boo gis itam nag danañu ci def ay saafara ndax bu ñu demee ba crédit bi jaaxal ñu bor yi bari yenn saa dañuy aj bor yi ñàkkul ku fi ñëw ñu ne la dañoo aj bor yi te foofu rek lañ mën a jaar ndax di leble te fayeeku bi des njóobee ñi tëdd ci bor yi aussi il faut nga teggi sa tànk moo tax at mu jot daanaka dana ñëw aj bor yi ñaari weer ba dara dugg ñu mën a continuer sunu rythme ah local bi itam ñu ngi toppaat rek di di wax di jooy suñu jàngoro xanaa madame baaxum bi yoon moom bu ñu. ak ministre ministre bi. ak représentant ministre. wax dëgg yàlla ah, assemblée général bi ñëw nag wallaay bu ñu fi jooy nag ay euh, local bi nag. lii la ñu indi woon lu ñuy wax di sant ñëpp nag ñi nga xam ne ñëpp dañoo wóolu mutuelle bi di sant partenaires yi. di sant jigéen ñi fa ubbi compte di sant groupement yi fa ubbi compte di sant personnel bi santaat ngërëm du doy ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waa comité de surveillance waa CA nuyu nañ ñëpp ak suñu membre comité comité de crédit kon lii daal gudd gàtt loolu la amoon lu ñu leen di saraar loolu moom mën naa leen ko seedeel ndax le 13 janvier 2022 woote na ndaje ca mutuelle ba pour comité am Euh, le deux mille 4 deux woote na ndaje le vingt deux mille vingt 2022 woote na ndaje le 36 woote na réunion le deux 16 8 2022 woote na réunion le 19 10 woote na réunion réunion yooyu muy woote nag bu mu ci deful woon rek ñun dañ koy daal di euh, instruire à le faire mu matal ay réunion pendant l'année ndax loolu moom lañ ñu fa tege waaw cré commité de crédit aussi ñu ngi def seen liggéey ba mu mat madame Ndiémé Ndiaye mais moo ko jiite te ñun ñooy saytu ndax ñoom ñi ngi jox seen def jox seen liggéey ba mu mat man ak na ba Diaw ak euh, madame Aram Kane ak Mariam Mariam Niang euh, du ma jaaraat ci nag crédit ñoom ñoom yi ñu joxe mais gis ngeen ni li mu wax nii yëpp ñun saytu nañ ko ba xam ni loolu lu wér la waaw ndax am nañu ay réunion yom yu ñu tenir gis nañu ni ñoom effectivement financé nañu li mu wax noonu gis nañ ko ci ay rapport ndax ñun ñooy xool seen euh, registre yi nga xamante ni ñoom moom la ñuy tenir tout le temps bu ñu pare dañuy toujours toujours dañu war a def euh, rapport de réunion après seen séance bu ñu bu ñu leblee ba pare ñun dañ fay jaaraat xool ba xam ndax ñoom li ñu wax ni moom la ñu leble ci ay nit wér na wala wérul bu fekkee am na lu ñu ci dugal rek ah yàlla nag jàppale nañu nag ba nga xamante ni ñoom defal nañ ko ni ñu ko waree ni mu waree waaw ndax bu di woon loolu it ah di ngeen di ngeen ñu dégg ñoom rek waaw ndax ñoo loolu moo fay suñu liggéey ñun dong ñoo fay comité boo xamante ni mënuñu cee bokk ñu ak ñoom benn liggéey ndax dañuy ñoon suñu liggéey dafa nekk liggéey bu indépendant waaw boo xamante ni mutuelle bi ci boppam ñun ñooy ñëw di saytu kees gi lan moo fa nekk seen xaalis yi ngeen fay dénkaane ndax ma nga fa waaw wala déet waaw te nag gis nañ ni wax dëgg yàlla ma nga fa ndax depuis le 17 janvier deux ñu ngi def ay descente foofu di def ay contrôle 17 euh, janvier 2022 def nañu benn contrôle kees boo xamante ni ba ñu ñëwee fekk nañ fa xaalis ba waaw à chaque fois bu ñuy ñëwee contrôle caisse dañ koy wàññi ba mu mat li fa liñ fa fekk keroog solde bi ñu fa fekk fekk nañ fa 5 millions 393 mille bi ñu ñëwaatee beneen contrôle euh, mois ba ca topp c'est le vingt deux 28 2 2022 février euh, ba tey rek amul benn écart zéro franc le 20 le le 31 mars 2022 dem nañ fa seet nañu kees gi écart benn amul zéro xaalis baa nga fa ba tey ah le 31 mars vingt 2022 moom laa le 21 avril 2022 la même chose amul écart écart mooy li nga xamante ni mooy ne ci kees gi ak ñun li ñuy compter bu fekkee ni manqué na. diggante bi dañuy xool li ne ci këyit yi ak li ne ci kees gi bu fekkee ni am na lu manqué rek loolu mooy écart bi mais dañuy gis ni amul benn écart ci diggante bi li ma leen wax nii date yi ma leen wax nii yëpp vingt 24 mai def nañu contrôle amul écart kees gi li fa nekk lañ fa fekk ba tey ah le 24 mai toujours 2000 euh, le le 2 juin 2022 écart amul liñ fa liñ fa fekk rek li ñu calculer moo fa nekk ah le 13 juillet la même chose. jërë ngeen jëf ci vraiment ni ngeen ma accueillir man mënuma leen a mais bu ngeen ma defalee nii nag defal ngeen ko sama dirigeant yëpp sama dirigeante yëpp macha allah muy comité de crédit. comité de surveillance ak conseil euh, d'administration comité de crédit et conseil de surveillance vraiment boo leen ma sargalee ñoom ñëpp ngeen sargal ndax ñoom ñoo ma taxawu tey jii ba may dugg foofu ay vingt quelque la ñuy wax ba tey jii macha allah mu ñu ñuy dugg ci yeneen at di sant suñu borom bi bu baax a baax a baax a baax Euh, man nag balaa may nuyu waa damay nuyu Roqaya jógal ñu tàccu la Roqaya jógal ñu tàccu la Roqaya moo représenté tey Ndayane représenté euh, Dayen Sirax Ndayane ak Popenguine ñoom ñi ñuy groupement handicapé yi nekk ci ndaayaan ak kii am jom ma financé leen yóbbul leen partenaire santé ñu teeru ma teeru boo xam ne keroog indi nañ ustaas yi indi nañ yëpp sama yaram bi da doon daw lu raw lii taxaw na fa mënuma leen a fay nag dama leen di bàyyeeg suñu borom bi ne ngeen maa baax waaye yéen a baax xam leen ne mutuelle bi jàpp na leen te du leen bàyyi ne ngeen kenn mësu leen financé mutuelle bee leen jëkkati financé leen indi leen ay partenaire gisagoo leen dara nuyul ma sa présidente bu baax awa ndax moom maa ko ne tey bul ñëw ndax fa tey lay ñëwee jigéen ñu am jom am fulla am fayda boo leen fekkee seen atelier yi bu ñu exposé da ngeen naan xanaa Juma Jeng Jaxate moo fi jaar kontaan naa ci yéen nuyul ma waa maraîchage tam ak ñëpp ñay bay ak ñëpp bàyyiwuma kenn xam naa ne tey dafa xat moo tax ñëwu leen waaye gën na fee yaatu nii ndax kenn ku nekk boot nga plus de 300 donc liggéey ci suuf wax lu tuuti jërë ngeen jëf euh, asalaamaaleykum En ma qualité de directrice de la quête McDolgy, il me fait de vous accueillir cette année encore afin de vous présenter les états financiers de 2022. Auparavant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au de la McDolgy. Notre structure s'est de nouveaux membres en félicitons. Ceci n'a pu se le dévouement et l'engagement de toutes peut mener à bien la méthodologie là où elle se trouve aujourd'hui. À ses débuts, euh, McDolchi ne comptait que 300 femmes. En jour, euh, le, ce nombre est multiplié par 20, avec une épargne constituée de 163 millions 200 997 et un encours de crédit de 152 millions 009 076,58. Ceci nous a valu beaucoup de sacrifices et de travail. Les résultats que nous vous présentons aujourd'hui sont les fruits d'un dur labeur. Et je profite de cette occasion qui m'est offerte pour remercier l'ensemble de nos membres qui nous ont contribué, et euh, qui nous ont beaucoup contribué. Cette assemblée est une opportunité pour nous qui nous est offerte pour mettre en cause afin de baliser le chemin de l'avenir de notre mutuelle. Sur ce, je présente le bilan le compte et les variations de trois ans. Donc, euh, les opérations de trésorerie avec euh, les institutions, euh, 150, 145 millions 144 546. Opération avec les membres, je toujours dans l'actif. Opération avec les membres, donc 157 euh, millions

opération de trésorerie avec les institutions financières 137 481 659 compte d'emprunt 81 millions 861 291 autres sommes dues aux institutions 55 millions 603 568 opération sur titre euh, opération diverses deux millions cent quatre-vingt-deux cent provision fonds propres et assimilés cinq millions zéro trois trente-trois cent quarante et un au capital cinq millions cinq cent quatre vingt cent vingt et donc total passif trois cent sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit 985 euh, les charges nous avons les charges intérêts sur les opérations avec les institutions financières 1 million 512 725 intérêts sur compte d'emprunt 1 million 507 608 les commissions cinq cent cinq millions cinq cinq cent mille cinq mille cent dix-sept charges sur opération avec les membres bénéficiaires clients cent soixante onze millions trois cent quatre-vingt-seize euh, total charge d'intérêt seize millions zéro soixante-neuf sept cent vingt-neuf et pour les charges là c'était les produits pour les charges nous autres autres autres produits financiers net total autres charges financières 6 millions 320 784 charge générale d'exploitation 25 millions 803 893 autres charges externes et charges diverses d'exploitation 7 millions 286 159 autres services extérieurs 4 670 404. Charges diverses d'exploitation 1 066 500. Dotation aux amortissements et aux provisions immobilières 436 500. Dotation aux provisions et pertes de créances irrécouvrables 8 362 500. Et cette année, euh, nous avons fait un excédent de 6 248 016 francs je m'en vais vous présenter euh, voilà les variations l'analyse financière que j'ai faite euh, pour 2022 c'est-à-dire année 2020 année 2021 et année 2020 et 2022 les variations nombre d'hommes en 2020 nous avons 596 hommes

Euh, les nombres déposants euh, maanaam góor ñi fay denc 2020 am na 537 hommes 2021 576 hommes 2022 600 euh, 603 hommes xaar ma wax ko en gros sinon dañuy jël temps bu bëri en nombre de déposants hommes et femmes en deux deux mille vingt 2020 2546 en 2021 cinq

en 2020 168 millions 280 mille en 2021 cent léppam mooy jigéen ñi nun def ba mu am ba am ndax xam na ni jigéen ñi ñoo yor kër yi tey jii boroom kër koo fi gis mu ngay gërëm soxnaam ndax lu fa manqué dina ko lijjanti si tey bu ñëwee mu wax ko ko boo ko amul lum ko jox dina ko neexal ba nga xam ni soxna si dina dem fayal ko ko kon nag yéen jigéen ñi jërë ngeen jëf lii nag ngeen di def tey ji nii wane na ni fu mu nekk nii am ngeen jéego yu mag yu ngeen teg ndax lii bu ngeen jógee di liggéey ngir njaboot gi rek moo tax ndax yonent bi salaawa salaam dañ ko laaj ci waajur mu ne ndey ñetti yoon kon yéen ndey yi xam nga lu ñuy ñaan seen li ngeen di def yàlla na si yàlla def barke ndax jigéenu Sénégal macha allah jàmbar ngeen boo jógee fajar ci tali bi boo diggee si dëkk bi ñu ngi si kaw tali bi di jaay yéen nag kenn mënulu leen boole kenn ku dul borom bi nga xam ni mooy joxe mu jox leen ndax ku ku leen gis fu ngeen leen fekk yéen a ngi tës tësi am na loo xam ne nag ah, fekkee naa ko fi ñu di ko jàmbat muy soxna si li muy wax problème mu local loolu moom du mën ni tax ministre maa koy jël engagement ñoom seen bopp may ànd ak ñoom ba su gouverneur mu wutal leen local loolu moom mën naa ko jël engagement oto ah tey ñu wut saret rek en attendant <laughs> lan si am ngeen moto. am nañ ah nee na am nañ benn moto kon oto moo des. waaw léegi loolu moom yomb na borom bi am na foo xam ne yoon yoo xam bu ñu fawee yàlla mën nañu ko yombalal. bala may dem dinaa la jox sama numéro téléphone incha allah de après tabaski ñu ànd lijjanti loolu. mais pour problème moom local bi moom jox naa la mercredi rendez-vous ñu dem ci gouverneur incha allah. léegi nag mi ngi wax nag ci problème mu recouvrement bi su ngeen bëggee mbir mi dem jamono metti na waaye nag il faut boo jëlee nga lu joxe ndax boo joxee yokkute day am parce que tey bu ngeen dekkee cent personnes war ngeen ëllëg mën a nekk deux cent ba ba mu nekki milliard parce que bu ngeen demee am na taux boo xam ne bis boo ngeen ko xasee atteindre day yomb si yéen liggéey bi waaye mënul fukki nekk fi fukki jël ba pare bañ a fay du dem ba tax na ah dinañ gisanteeg ministre mu xool moom it si wàllam nan la mën a def ba seen koom-koom yokku loolu moom incha allahu rabi bu jógee États-Unis moom dinañ si waxtaan moom ak nu mu leen gën a mën a recevoir lu mu gaaw-gaaw ndax bàyyi jën seen yëpp ñëw di diisoo pour lu leen yokk kon nag ki nga xam ni nag jàpp na si dara loo ko gën a puus day gën a dem di kontaan nag loolu ci yéen di leen jox daje beneen yoon di leen sant di leen gërëm wasalaam